am na décret boo xam ne jël na ko ngir nommer envoyé spécial du président de la république kookee di woyo ci turu Abdoulaye Bathily décret bii nag président de la république mi ngi ko xaatim le 15 juillet 2024 Abdoulaye Bathily moomee ñu ko jagleel juddu ci atum 1947 nekk historien universitaire te nekk itam homme politique fii ci réewum Sénégal jot na nekk ministre ak député ci présidence bu Abdou Diouf ak Macky Sall moo nekkoon chef de file bu Ligue démocratique mouvement pour le LDMPT diirub ñaar fukki at ak juróom-ñeent moom moomee nag bokkoon na ci candidat wu élection présidentielle bu atum 2007 ci turu coalition bu ñuy woowee jubbanti Sénégal moom Abdoulaye Bathily nag soutenir na benn thèse ci li ñuy woowee royaume du ngalam ca université bu Birmingham lu ni mel mi ngi am ci atum 1975 mu jënteel gi nag mu nekk professeur d'histoire moderne et contemporaine ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar nekkoon na ministre de l'environnement Dias en 2000 mujj nag ci la doon vice président bu assemblée nationale élection boobee nga xam ne moom ci coalition jubbanti Sénégal la demee woon amoon na ci 75 maanaam le 1er président Macky Sall di koy nommé mu nekk ministre d'État auprès du président de la République ci nag moom dafa retiré wu direction bu Ligue démocratique ki ko wutu di Mamadou Ndoye ci mois d'août moom Abdoulaye Bathily ki nga xam ne mooy Antonio Guterres nekk taxawaayam bu représentant spécial de l'ONU ca réewum Libye moom nag le avril daa démissionné ca boobule poste moomee di Abdoulaye Bathily moom la président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di nommé tabb ko mu doon envoyé spécial bu président de la République maanaam président bu amee yenn soxla yoo xam ne da koy bëgg dox ci lu ñeel wàllum diplomatie moom moomee mën na ko faa bu dee moom mënut dem ñëpp dégg nañ coow li nga xam ne Niger nga xam ne dañoo génn ci boobu lépp kuréel la président Bassirou Diomaye Faye ñu chargé ngir mu réconcilier kuréel gi di CEDEAO ak yooyu la moom mu war cee dox ay jéego moo waral la nomination bu Abdoulaye Bathily Bile ci bëree rafetlu ko ndax moom am na taxawaay bi am na expérience bi ba noppi itam respecté nañ ko ci àdduna wërngal képp dem ba Antonio Guterres xam say capacité ana la ngir nga nekk représentant spécial bu ONU ca président Bassirou Diomaye Diakhar Faye juumul benn yoon ci tànneef bi nga xam ne def na ko ci moom ñoom njoxtu bu rafet ni ay résultats yu satisfaisant mën na ko cee am ndam lu rëy a rëy mu di ànd booloo unir waa Afrique jëlewaat leen ci benn kuréel moom président Bassirou Diomaye Faye mën na koo réussir Abdoulaye Bathily Milé mën na ko cee jàppale ndam loolu ñu mën koo am yàgg nañ di wax ni Pastef yitteem nekkul Sénégal dong waaye Afrique gi yëpp dañu bëgg ci yitte bi ci war mën nañ cee am ndam Sénégal jamono ji daa nekk réew moo xam ne référence la ndax maturité bi nga xam ne nemmeeku suux na sax comme yeneen i ay réew ni ñu ko defee waaye askan wi dañoo wane responsabilité génn ci situation bu doyoon waar boobule am ci ndam lu rëy ba jëlee fi ki nga xam ne moo ko naroon yàq muy Macky Sall moom ak régime am mars askanu Sénégal wane maturité bu rëy rëy ci àdduna wërngal képp ñëpp gën ñoo fonk dara dara waralu ko nag lu dul peuple boo xam ne dafa mature xam fi mu jëm xam li bëgg peuple boo xam ne itam du nangu kenn di ko yàpp peuple boo xam ne il ne se laisse pas faire peuple boobule moo taxaw tem mu faire face au président Macky ba jëlee ko fii ba tey jëlee président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nekk ci bopp nguuru Sénégal bay mën a jël ku mel ni Abdoulaye Bathily indi ko ci lang gi ngir mu jàpp ci liggéey bi ngir Sénégal li mu doon mën koo wane ci Afrique gi yëpp tey jile ñëpp ci ñun la ñu yaakaar ngir waa CEDEAO àndaat booloo nekk benn même sax seen dikkaat bu mënut a nekk ñu ànd xool naka la ñuy def ngir Afrique ñun ñëpp ñu mën a tegante loxo ngir am ndam mën nañu ko c'est bien possible kon nag mission wu jàmm ak salaam la ñuy ñaanal Abdoulaye Bathily moom mi président Bassirou Diomaye Diakhar fay nommé mu doon envoyé spécial du président de la République mission yi ci kanamam yàlla na ko mottaleeg jàmm fàttali rek ne genre Abdoulaye li yile dañu leen a soxla ci am réew nekk boroom xam-xam responsable doon professeur d'université tey étudiant respecté la jox la cër ña nga jàngaloon démb ba tey jilee ñu def la référence nawloo la foo tourné ñu jox la loxo màggal la sargal la tatagal la ute lool ak ñenn ñi nga xam ni góor daf leen jaraloon ñu jaay seen ngor ba tey jile seeni étudiant ya woon woo leen tuddalee boobu la professeur ñu la déglu duñu la teewlu ndax defatuñ ko royukaay tout simplement parce que moom intérêt boppam la jiital tegee de côté l'intérêt de la nation solo te Abdoulaye Bathily mili melul ni moom kon dool di ñaan suñu borom yeggali yéene président de la république ci moom Abdoulaye Bathily AGT News